Euh, chers amis téléspectateurs euh, tey jii nag euh, ñu ñëw fii ci quartier da ñoom nag seen yeewuk tey xaw na métti tuuti sëñ bi tuuti ak sant bi lan moo fi xew exactement gis nañu ngeen takk seen i bagage ak yooyu na naka nga tudd. ma Mansour Mbaye laa tudd. dëkk fii Bouleyda. dañu xëy suba teel après ñu gis gémi yi ñëw fii ànd ak ku tudd Samba Seye mu ni mooy propriétaire kër gi. biñ dikkee après quatre caterpillar bi taxaw. am ñuy yeenu daw yeewoogu woon sax boobu après ñu ñu dañuy toj ci kër gi parce que avertir na leen bu yàgg ba léegi kon kër gi sama kër la léegi dañuy di génne bagage yi après ñu toj ko bi ma insisté après gémi yi ñu ànd ak ñoo xam ne ay prisonniers lañu ñoom ñoo ñëw commencé génne bagage yi di teg ci biti ñun dañuy toj kër gi waaw kër gi benn paa bu tudd Sohaibou Ka bu dëkk dakaar moo moom kër gii ma nekk nii ak kër gi léegi nag bi mu tabaxee kër gi ba mu des tuuti muy day jaay parcelle bii nii pour war a àggale këram ma ñëw moom moo ma jaay kër gi bi ma ko jaayee ma commencé tabax ma commencé tabax après ñëw nañ fi proposé ni moomu leen kër gi ma woo paa bi bi ma ko woowee mu ne ma kër gi tabaxal kër gi sa kër la parce que maa jënd ñaar yëpp maa dëkk fii maa moom fii nii. ban 2017 2017 2017 la. gisaguma chef de quartier ñëw fii wax dara parce que chef de quartier dafa mel ni ñoom dañoo ànd ak waa ji nga xam ne moom mooy toj kër yi. te man dama yaakaar ni kër moom cadastre moo ko war a toj wala boo koo xamante ni bii huissier la. mais ñew rek yor say caterpillar and ak say jimi ak say alger yi mbaaw ñun da ngay toj kër jàmbur ci amu foko tek man damay japp loolu mom non c'est autre chose wa ñun ci kër gi dafa am sama ay mbokk yo xamni ñewon nañ fi sank ñun légui ñu ngi dem négocier ak waa pour mu mëna bayyi bàyyi kër gi légui ñu bañ ko toj ñun daal li rek mo xew fajar daal lan yeew rek samba sey ñew taxaw and ak ay jimi daal di ñew taxaw commencé ñu génné bagage di jal fekk sa bobu ne na ni xale yi yeewoogu mu joon di leen yé di leen fop di leen denkané yeneen i kër ñu taxaw ak seen katarpan commencé di génné bagage di sana bagage yu bari yaq fi xey suba rek ño xam dañu yor seen njabot nga ñew rek fële xoo ñëpp aw ni jëmi dugg ba sama bi nek and ak prisonnier yi parce que amna sama sac bo xam dafa def xaliss gisumako ba légui bi mom ñom bi ñe taxaw nee ñu andal ci bopam sama xaas bu ko gisulé di ngeen ma fay ndax sac bi ba légui gisumako mais prisonnier ñew di dugg sa biir nek gendarmerie ñew di acc sa rideau c'est pas normal dëkk bi dafa melni amul yoon avisé wuñ leen jot déedéet ñun dañoo ñëw rek di kii di suñu doom bi moo doon jàng gis ko ñëw fëgguñu ñun ñun ñun ñëpp a tiit loolu c'est pas normal dafa dëkk bi amul yoon Samba Seye nag moom yoon war naa teg loxoom ci moom xaw ma nag yoon moom moo leen moom xaw ma seen c'est pas mais nañ ko lijjanti wala ñeneen ñi lijjanti ko sama xaas nag bu feeñulee fu mu fu mu bëgg di dinañ fa dem parce que prisonniers yi waruñu dugg sama nekk di fëlëxee déjà ñoom ñu ñëw aj sama rido ni boo génnulee ñu génne say bagage c'est pas normal dëkk bi am na yoon. léegi man damaa nekk sama kër ñëw di lal affaire yi yàqaat ci sunu kanam yi ma ne waa li xew li li ñuy sànni nii li xew foofu de jàmm xew fa. après sama rak bi daal may woo téléphone ñu ngi génne Mansour ak bagage am yi ak njabootam bi may eggsee maa ngi fekk njaboot gi ñoom ñëpp ñu toog ci mbedd yi ak bagage yi yeeg yëpp bi ñu dikkee nee na ñu ni Samba Seye semi fees del ni kenn dugg dañuy dañuy toj kër gi te kër koo xamante ni moom dafa jënd ki ko jaay mi ngi dund ñepp nga dund mom daf koku dafa wara ñew lijeenti ko mu ne ci jàmm kenn may ko kenn lebal ko dafa jënd bi mu jëndé nak dañ ko wara bayyi ci jam mu ne ci jàmm mom kërëm bima ma dama joy ñepp joy fi ñepp doon yu xoo jabaram ji dafa daanu dafa dañ fe ay waaw dafa fetal ay lool kay daf ko fee dañ ko fee ñom ñoko fi sanni ñom semé taxaw ñoko fi sanni bi nu dikké nag kenn gisatul sa morom ñi affaire yi ñepp xalé yi ñom ñepp di ñi di waccu Lol, dafa metti ci jabot metti na ci jabot nanu dimbali ngir yalla ñu wax ak Samba sey ñu dimbali ñu ñu bayyi ñi seen jam ngir yalla ta yalla rek tax ñu ngi ñaan pa Serigne Mbaye moy suñu kilifa serigne bi serigne bi pa Serigne Mbaye moy suñu kilifa ñun gannaaw oseno Ba bi mu fi jógee Serigne Mbaye moy suñu kilifa danoo bëgg sam Pape Serigne Mbaye mu wax ak Samba sey ñew ci kër gi xol wa ka ñab oseno Mbaye gi ñu pa Serigne Mbaye waru fe nek ñu jaxlé jaxlé nañu son nañu ngir yalla nañu dimbali ñu donc euh, loolu la ñu leen jëlal fii ci Bouleyda euh, mu nekk nag histoire bu triste euh, d'autant plus que dañu taal ay grenades lacrymogènes pour déloger ñi nekk ci kër gi sans compter que ne ay xale ñu ngi fi ay jigéen a ngi fi ñu feebaru aussi ñu ngi fi donc li ko waral mooy Samba Seye le courtier moom moo leen ko jaayoon mais mu mel ni kër gi daal am na lu ci laxasu en attendant nag dinañu seeti Samba Seye laaj ko lan le jote ak waa kër gi ba wax ñu génne di wax aussi alkaati yi gendarme yi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy pénitencier yi ñu des raison garder xam ni fii ay doomu aadama ñoo fi dëkk même boo leen dee génne tamit war nañ leen a jox ay délai jox leen ay sommation euh, ñu leen di gërëm bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Kane ànd ak Pape Ndongo Pouy